jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek nañ ñu koy topp ci site internet bi di RTV Dakar. li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy du rek sitim bi nga xamante ne rek ñeen liggéey ak ci weeru octobre ci li nga xamante ne moom mooy jàmbat yu liggéeykat yu nekkee ca poste nag daal di am ñoom syndicat national des travailleurs de postes et télécommunications ñu dippee leen SNTPT daal nag ab sitting ni ki tey ci ji yemoo fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre ci atum 2024 ci kanamu nag direction général ba lañ lañ ca namm rek mooy mobiliser seen personnel bu ko defee rek ñu daal di attirer attention autorité yu yees yi ci jafe-jafe yi nga xamante ne rek ñu ngi koy dund ñoom syndicat yooyu nag ña ngay daal di woote nag sàkku ci secrétaire généraux des unions régional régional ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy liggéey ci poste daal di organiser wu amal ab sitting ci bopp direction générale yi bu ko defee rek ñu mën a wax jafe yi nga xamante ne rek ñu ngi koy dund nag ca boobu boobulee bopp moomeel niki tey ji nag la ñuy namm amal rek boobulee sitting ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy daal di àddu rek wax nag ci li nga xamante ne rek moom moo ñeel faux cachette ak primature ñaari nit yi nga xamante ne rek tegoon nañ leen ci loxo daal nañ leen bàyyi cerveau le mbir daal nañu am nag ab rebondissement ci affaire falsification cachet primature foofa ci chambre d'accusation bu cour d'appel bu diwaan bu Ndakaaru nga xamante ne rek daal dinay dëggal nag liberté provisoire bi nga xamante ne rek kii di El Hadji Mamadou Diallo ak sërëñ mbay daal nañu koy am nag foofa ca chambre d' accusation ginnaaw dogal bi tukkee woon ci juge bu huitième cabinet bu Ndakaaru nag daal dina leen may rek lii di ab bàyyip nëgandiku ginnaaw ba procureur de la république nag daal di lañ bëtee seen dossier dafa daal di dëggal rek liberté provisoire waaye nag ci conseil yi nga xamante ne rek moom moo daal di tukkee woon ca boobu li mbir ci kanamu chambre d'accusation dafa daal di dëggaloon que ne décision bi nga xamante ne rek juge d'instruction bi dal dina koy jël nag ñee mën nañoo am ab liberté provisoire ba mu sof soxna si di Sofietu si mi nga xamante ne rek ba nëga ni mu ngi ca ndungu siin ci mbiram liñ leen di toppee nag mu ñeel service des ministères l'intérieur mi nga xamante ne daal di woon nay xamle foofu ca division d'investigation criminelle di dégg ne nag ki ñuy wooye Serigne Mbaye Safietou Sy ak El Hadji Mamadou Diallo ak kii di Ali Bamaka ñoom ñooñu ñëpp nag nan la ñu toppee rek foo cachet de la primature ak toppandoor signature Ousmane Sonko mi nga xamante ne rek moom moo nekk ilimaanu jëwriñ bu njëkk bi ngir mën a gisante ak autorité yi nekk ca diwaan bu bitim réew ci mbir mu mel nag ñoom groupe boobu nag dañoo demoon foofu ca bu Libye usage de faux ci ab document administratif ginnaaw nag lañ leen toppewaat encore ba tey rek ci boobule mbir moo di wàllum njuuj njàcc ak luubal dañ leen tegoon loxo nag ni ki mois de août bee ñu génn bu ñu sukkandiku rek ci xibaar yi nga xamante ne suñu nattangooy Seneweb daal nañ koy fësal nag ressortissant nigérien bi di woy ci turu monsieur Ali Bamaka ne nañ nag moom mooy cerveau groupe bi moom nag lu di njàkk rek moom mooy njàkk ginnaaw entrée enquête préliminaire yi nga xamante ne rek daal nañu koy def kii di El Hadj du Diallo ak Serigne Mbaye ñoom ñëpp nag dañoo wax ne rek laalewuñ ci yëf yi taqeewuñ ci waaye kii monsieur Diallo dañ ko daal di déclaré que ne moom ci jëmi boppam rek na mu interprété nag moo di ne boobu lee mbir yoonam nekku ca ndax nag kii di Serigne Baye la mu daal di xam ne rek moo di e kii di soxna si di Sarfeetu si moom ci jëmi boppam rek moom la doon liggéeyal te da waxoon na ko damaa bëgg ànd ak yow foofu ca diwaan bu Libi ak Dubaay ngir gisanteeg samay partenaire d'affaires moom nag mbir noonu la ci taqee du ñàkk dinañ ci ñëwaat te ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné wes cloche de a am yeneen